banni bato diig na barki Dembo Ndiaye fii ci port bi. Jessica. xëy rek diig avion bu waroon génn naaw génn piste bi accident avion am fi bato bu diig am fi chaque jour y a des morts d'accident ci tali yi. ñu jógee foofu tey fleuve bi ñoo fekk si kër yi bay dugg saint wi ca Ndar quartier bi ñuy wax xar yàlla sax instant ñu ngi tiit mu yegg si fa kon affaire baa ngi ñëw mais au moment. on voit à Arena tour meeting bu Ousmane Sonko maa ngi gis Abou Diallo wax léegi ñu jël ay handicapé di ko filmer di ko dugal ci réseau yi. je me suis dit que. def leen seen liste di leen avant-hier. j'ai écouté alors que fii Yatma Fatal ni handicap Sénégal kenn mos ko utiliser di ko di pour man pour pour campagne. waaw mais xam nga ma nga fàttalee ne Yatma. waaw l' association des handicapés du Sénégal seen kii. ñoom jàpp nañu ne amuñu handicapé boobu. ñu ngi ñu ngi ci liste yi ñu ngi ci nekk di def leneen ñoom rek ñooy ñëw utiliser benn affaire. merci ko parce que respecté wuñ dignité ah, humaine. xam nga ma ma laal foofu sax dama gis Adama Faye barki dem ak Pape Ngagne Ndiaye faram fàcc mu ne coalition defar sa gox bi mu demee élection législative da ci ànd ak l' des handicapés ba pare jox la dans de bonnes places bi ma gisee communication boobu jàll. Moussa Thiaré gars yi du ko relever actuellement moo remplacé Yatma. bon je sais pas man dama ciy kii rek. Mhm. gars yi di mhm. émission boobu ak paragraphe boobu bi ma gisee xëy gis ñu jël handicapé yi exposé leen seen bi attends waruñu utiliser loolu comme élément de langage politique parce que je crois que la dignité humaine dafa jiitu intérêt politique et que Sénégal fi ñu toll nii war nañoo waxtaanee ci vingt mille tonnes de gaz yi Sénégal war a jaay. ci 2024 bi te 2024 léegi bu jeex war nañoo waxtaane ci pétrole bi nga xamante ne depuis que ñu commencé ko commercialiser léegi ça fait de deux mois chaque jour ñu génne un million à un cent mille cent cent mille cent à quatre-vingt mille barils de pétrole par jour on n'entend plus parler de l'argent du pétrole on n'entend plus parler de l'argent du gaz c'est une parenthèse boo xam ne ma koy teg pour Sénégalais di ci bàyyi waat xel qu'est-ce qu'il y a anamu lu ci waxtaan du ñoo xam fu ñu jëm au moment où on parle le courant yokku na électricité ku nekk sa facture yokku na ndox mi ku ne sa facture ndox yokk na dund gi moom ku ne xam ne moom la ñuy jooy guddi bëccëg mais nag keroog dama fi toog ne bu ñu defoon na président Macky Sall gën leen demin. très bien xam nga lu tax ma daaneel. très bien. dina ma ne na leen gën demin ñoom ñëpp a maasoon ànd ne na Macky réew mi. très bien yemuñu woon ci nekkoon na génn réew mi en tant que citoyen sénégalais ci wàllu politique mais dañoo dem ba bannir le président Macky Sall. président Macky Sall génn dem bi mu demee Europe fépp fu mu dugg ci Europe wala États-Unis buy dem ay cortège sa koy topp tey jii ñooñu xeexoon li président Macky Sall doon teg di ko salfaañee le bilan immatériel muy injustice utiliser armée bi utiliser police mais buggaan di ko xeex guddeeg bëccëg suba ngoon ak opposant opposant yi tey ñooñu ñoo wëlbatiku tey dajaloo di xeex pouvoir bi fi nekk tey ci cadre boobu moo tax ma ne bu ñu nag mu ngeen leen demin mais tey nag il faut aussi que sénégale yi xam li bëgg tamit soit dañuy mën a ànd xool ci li nga xam ne ay kaddu président Pastef la woon nañu moytu jël parti au pouvoir jox ko président de la république pale bi wëlbatiku jox ko assemblée ne képp koo xamante ne sénégalais nga na nga gàntal te bañ koo jox oppo euh, euh, euh, la majorité à l'assemblée nationale. très bien parce que ku la dig bool bala la joxe paraat saxel war naa dal. te je crois que depuis avril à nos jour palaat bi nga xam ne moom lañ dig Sénégalais yi de mm. damaa yaakaar ne doomu taal moo ci nekk te doomu taal bu ngelaw gi bare rek. palaat ba day set. Euh, très bien merci beaucoup euh, euh, moom ca Dakar Arena également ndax mu nga fay yëkkati ay kàddu actuellement ndax Ousmane ko mu ngi naan Bougane na jël ay militants peut-être yóbbu leen foofu nga xamante ne moom moo di ca Arena ba pour mobiliser wala mu mobiliser autant d'argent jëmale ko comme ñoom nañu ko defee waaye mu mel ni moom itam tontu na ko wan ko dund ga nga xamante ne yëkkati na ko yóbbu ko ca Bakel pour sinistré yi xamante ne actuellement ils ont besoin de euh, d'appui dimbal mais pas ay wax yoo xamante ne ne peut-être euh, dafay jëm euh, ci li nga xamante ne moom moo di ci wàllu politique abu no xam nga li ma wax léegi léegi c'est très clair il faut que sénégalais ñu dugal loolu seen bopp ko Sonko Bougane Gueye Dany moo la tere nelaw moo la tere lekk communication ngay surveiller ce qui se vous avez envoyé une une armée de bâtards parce que ay góor wala ay jigéen yuy dem di xastel ay doomi coxeur rek ak ay doomi ñuy coxeuru jeeg rek ñooy dem di xastel nit mu toog au balcon mais ça ça c'est contre-productif xam nga sànq daf ne dégg naa am na ñuy tibb tànk cela veut dire que l'effet des tibb tànk existe tibb tànk boobu noonu mu wax ci discours am bi ne ñiy tibb tànk ak leneen di def leneen mooy wane ni kon cela veut dire que ni mbir mi mu ngi lay blessé dégg naa keroog fii ay journalistes ak yenn intellectuels yi ñenn bind ci seen page la ça je le dis à Bougane au Sénégal Ousmane Sonko avait di gat sa gat sa saaga ñëpp ne ku dee sa yaay juraat retourné waat taxaw fii ne sénégalais yi moom Ousmane Sonko taxaw ne sénégalais yi yéen ñii ñëpp ku noppi ci lii complice nga benn intellectuel ñemewul wax. benn juriste ñemewul wax benn association droits humains ñemewul wax mooy ñi Ousmane nappoon ba kenn ñemewul wax. ñi ko ragaloon tey ñoom ñooy retourné waat bi ne naan non Bougane ce qu'il est en train de faire il est en train de so Bougane il est sur la bonne voie et cette voie là moo blessé Ousmane Sonko nii nit boo demee ba koy wax xam nga toog na ne opposition sac à main ma ne leen blessé na ko actuellement Bougane moo ko teree nelaw léegi benn benn benn benn alibi rek la jël mooy nañ dem organiser financer euh, euh, euh, organiser ku mën parce que xam nga lu tax lu Ousmane wax rek parce que c'est des lu mu wax rek mooy da koy dégg en général sans limite ci ñetti jéeg fenkat yooyu wala nga dégg ko ci Cheikh Bara Ndiaye dans un pays où Ousmane Sonko prend la réflexion de Bara Ndiaye jusqu'à la mettre sur une liste dans un pays où Ousmane Sonko les plus grands journalistes du Sénégal ils préfèrent benn jéegu fenkat boo xam ne ni du journaliste jànguwul ci école yi génnul fenn amul sax ay mbokk léegi c'est cet homme là mindset boobu lay jël il n'a pas besoin des personnes réfléchies c'est c'est un homme bu envier même kilifa diine yi parce que soo seetloo à chaque fois bu kilifa diine yi woote waan ay aadiya ay Touba ca kanam ay euh, jumaaya affaire yooyu ces éléments dañuy génn attaqué leen tey Cheikh Omar Diagne lan la waxoon nee na ñun gàmmu màggal xadara yi yu ñuy def yëpp mooy ay association de malfaiteurs c'est le système de blanchiment d'argent mais aujourd'hui Ousmane Sonko ce qu'il est en train de faire là-bas gars yi di ko jox xaalis ana Cheikh Omar Diagne loolu ban forme la sëriñ si dañu ne woon ñoom lii ñu ñit ñi di leen di jox pour ñu co-construction ñuy dem di construire seen dëkk yi ñuy dem di defar seeni i jumaa yi bu gàmm jotee wala màggal jot ñu remplir les caisses de l'État Cheikh Oumar Diagne avait dit que loolu blanchiment d'argent la loolu la attaqué sëriñ yi weesu si ñëw attaqué seeni mbind waa léegi tey Ousmane Sonko reprendre na cagnotte am te cette fois ci cagnotte bi ngay reprendre ministre de l' intérieur bi yaa ko fa teg sa ministre de l' intérieur la le de l' secrétaire d' yaa ko fa teg moo koy contrôler ñi doon def euh, ñi doon def Kopar Express yëpp nommé dina ñëwaat léegi léegi am na ku nekk en ligne Pape Gorgui Ndong euh, nekk co intercoalition takku wallu dinaa ñëwaat ci yow Abou Diallo il est en ligne euh, Pape Gorgui ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ginnaaw li nga xamante ne tey gis nañ ko ci. yaa may dégg. oui maa ngi lay dégg waaw. macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax par rapport ak euh, li nga xamante ne tey moom moo xew noo ko euh, gisee yow mi bokk ci coalition inter euh, coalition takku wàllu. naqarlu ko bu fu ba fu naqar yem di ko naqarlu au nom d'abord de tous les patriotes et républicains de ce pays puisque li ma jàpp ne moom lañ def mooy violer d'abord les droits fondamentaux. la liberté de circulation daa bokk ci droit yi nga xamante ne tey garanti par la constitution du Sénégal la ca gën a la ma gën a ñaawlu nag mooy motif bi nga xamante ne tey moom lañ utiliser pour euh, maanaam cette mesure arbitraire boo xamante ne laluwul ci dara mooy mooy président de la République dafa nekk ci benn gox à Bakel kon un citoyen sénégalais n'a plus le droit d'entrer dans cette localité comme par exemple tey ma jël sama bopp man mii nga xamante ne tey Pikine laa nekk mon village natal di Yaayem si par hasard le président de la République bu nekkoon à Yaayem je n'ai plus le droit mois de mettre les pieds dans mon village natal ça c'est extrêmement grave et ça commence maintenant à être de mhm. tout